mbokki téléspectateur de la 2STV maa ngi leen di nuyu émission au galop tey ñoo ngi fii ministère de des sports le ministre Matar Ba doon installé officiellement le comité national de gestion des courses hippiques du Sénégal installé na nag comité bi pour deux ans ki nga xam ne moom lañ tegaat ci boppu comité bi mooy président Cheikh Tidiane Niang bu ñu jógee ci loolu les jeunes turfistes de Rufisque dañ doon def point de presse di ñaxtu li nga xam ne moo jëm ci li nga xam ne mooy terre bi dafa impacté li nga xam ne mooy hippodrome Tanor Anta Mbaxar te xam ngeen ne hippodrome Tanor Anta Mbaxar nekk na hippodrome boo xam ne hippodrome mythique la ndax 1909 lañ fa njëkk a organiser course kon nag les jeunes turfistes de Rufisque dinañ leen euh, ñaxtu nañu wax ci li nga xam ne moo jëm ci terre bi li mu impacté li nga xam ne mooy hippodrome Tanor Anta Mbaxar loolu yëpp dinañ ci ñëw ak yéen. nii laa la def ba tax na waruma lay sore yow maam foog nii pelloo su ma la mënoon may àdduna ak la ca biir jaral nga ma ko bu naan ko tuutee lii di sama gaal bi lu ñaaw ak lu baaxul lépp day feeñ kon maa ngi leen di sant euh, di leen gërëm di am mbégte am leen fii tey yéen ñi nga xamante ne dangeen a am charge bu rëy rëy parce que Sénégal fukki million fukki fukk ak juróom-benn ci ay million nit lañu ñu tànn leen jox leen li ñëpp moom nag mooy course hippique sport la ñëpp a ko bokk. parce que yéen a ngi bëggal nit ku toog këram bu course amul mu jaaxle kooku ci la bokk sénégalais bi bëggal course sax ci la bokk parce que ci réew mi ngeen nekk te doyadi lu ñu course hippique fas kenn du ko doyadil ku xam histoire àdduna doo fii nit fu mu a nekk fas a ngi ci wetam yàlla amul hasard suñ nee deretu fas moo gën a jege deretu nit yàlla mënoon naa jël beneen mala defe ko noonu mais fas la ko def kon ku fonkul fas amul yéen nag président Macky Sall wóolu leen ma jël arrêté nommé leen ma bëgg ngeen xam ne Cheikh Tidiane Niang mii ak a mujje ci arrêté bi ñoo yem ci kóolute gi président am ci ma signé ko faluñu leen dañ leen a tànn ku ñu tànn nag moo ëpp coono ku ñu fal parce que tànn mu tànn dafa garaaw surtout réew tànn la dénk la loolu mooy wane ne lu nit di góorgóorlu na ko yor te nit ñi muñ te xam ne ñetti nit fu ñu toog ren ba déwén dina am contradiction ci gis-gis waaye bu ngeen jiitalee liñ leen dénk ngeen dépassé gis-gis yi pour mun a parce que am na groupement sportif yoo xamante ne noonu la tëddee président ba dana mën lu bari waaye ña ca des duñ mën lu bari bu boobaa niñ lay dégloo mun naa ñàkk waaye nag boo bootee ñoo xamante ni ñëpp ay kilifa lañ il faut njiit day am façon nopp bu ne man danaa déglu ko yara dëkku danaa déglu ko am yar danaa déglu ko am xam-xam danaa déglu ko xamul dara waaye bu ma lay déglu doo ràññee ne maa ngi lay déglu mais nopp li ngay wax rek nopp boobu la lay jox su ko defee la ma cay jël mooy li mun a tax liñ ma dénk ma am ci réussite Maintenant, ce qu'il faut demander au président de commission, c'est de se réunir. Et vous fixerez dans votre, lors de vos prochaines réunions la périodicité des, des réunions de, de commission. Élaboration de réflexions stratégiques sur l'avenir de la discipline sportive. Je pense que c'est pourquoi on vous a créé, en tout cas, une commission qui est chargée du développement, qui va capter toutes les innovations possibles et les réflexions pour que qu'on puisse se projeter dans l'avenir et savoir ce qu'il y a faire. Je vous avais indiqué l'autre jour bi ñu dajee que c'est important que quelque des fois ñu dajeeg jockey yi dajeeg même quelques supporters daje ak ñi ci bokk pour ngeen waxtaanaat ci chart yi parce que nit bu bokkee ci dara xam ko ci la coow di gën a wàññeeku. mais des fois nga gis kuy xeex sax ne fas bi moo raw te ñàkk xam la ko wéeru wéeru ko ci texte wéeru ko ci li leen tënk moo tax comme am ngeen nit ñi nga xam ne mën nañ jàngale loolu ñun mën nañ leen ci jàppale du ñàkk ñu mën leen abal sall présidente la directrice chargée de la formation est là euh, même bu dee sax euh, da leen di paye añ wala je sais pas quoi andi leen ñenn ñoo xamante ne xam nañu ñu fekk si ñi fi ne ngeen waxtaan ci wàll yi tegkaay yi nga xam ne mooy andi coow ci course bi bu ngeen tegee seen télé teg seen kii yi nga xamante ne day andi coow ak werante nit ñi foog ne faralaate da ci am ngeen tegkaay expliqué ko képp ku ko fekkee nga xam ko bu amaatee doo xuloo parce que di nga xam ne lii moom moo tax pour les régions aussi je sais pas ce dans la a dans l'arrêté concernant les mais ñun duñ leen falal kenn ci région ni ñu leen tànnee woolu leen yeneen xool région yi ñi nga xam gëm nañ course te mën nañ ci dara ngeen jox leen course yi gouverneur formalisé ngeen amul amul kii bokk na fii mënul bokk fële ah, ça n'existe pas dans dans un dans un comité de promotion je pense que toutes les synergies dañ leen war a dajale pour mun a xalaat bu ñu demoon nag ba am assemblée générale boo xamante ne dañ leen di fal fédération bu boobaa ngeen def seen teg texte ñun bu ànd ak wu Sénégal ñu bàyyi leen pour le management de la discipline muy course hippique yi li ñu leen di demandé mooy ngeen boolewaat mbokk yi famille même bu amee ku dem parce que daa am lu ñuy def am ku mer dem li jaadu ci kilifa yi mooy ñu jël famille du tas te ku nekk war nga fexe. ba bu ñu la dénkee famille mu bañ a tas formation des cadres techniques da li tax mu ñëw moo chargé formation bi je pense que yéen ba léegi gisaguma benn séminaire de formation boo xam jox nañ leen ay diplômes dans ce sens elle est là venir la voir ngeen xool schéma boo xamante ne formation dana mën a am nit ñi am diplôme jokko yi dañ war a am diplôme ñi nga xam ne ñooy atte dañ war a am diplôme diplôme yooyu c'est des diplômes officiels mais di daw rek bu daw rek bu jeexee nga jeex na ah baaw mooy jël rek fay jockey ba bu demee ba jockey bi diis ci kaw fas bi mu teg ko fële peut-être def ko muy sotti muy sotti ngooñ wala muy sotti je pense que il faut que ñu nangu ouvrir d'autres portes à ces jeunes là qui font du sport comme les autres donc loolu aussi il ñu xool ko bu baax organisation de compétition yéen yéen a ngi ci amu leen beneen jafe-jafe ci wàll woowu c'est pourquoi c'est ces mots-là que je voudrais dire et vous réitérer comme je l'ai dit à l'entame de mes propos voilà monsieur le ministre kontaan nañ trop si confiance danga nga am porté ko suñu choix teg ñu à la tête de cette nekk na lu rëy rëy si ñun plus particulièrement moi waaye li nga xam ne moo am ñu def ko mooy mënuñ def autrement que li nga xam ne nii moom ñu digal man nag li ma xam ci kilifa mooy respecter ses instructions man lépp loo xam ne moom nga bëgg wala moom ngeen bëgg lu tegu ci yoon loolu rek lay def ku ma xëcc feneen du ma ca dem li nga xam ne moo am nag mooy lenn li ñu yor dafa nekk sport bu xaw a complexe li ko complexe la mooy acteurs yi nga xam ne moom ñoom laa diriger dañ nekk ñoo xam ne ils ont les moyens certains d'entre eux ou la plupart d'entre eux mais c'est des gens yoo xam ne ils sont passionnés de course te passion da yóbbu nit ci lu ne te am na loo xam ne jar na ko am na lu ko jarul waaye nit ku nee da nga koy jàpp ci ni mu mel rek naxanteeg moom man nag naxante moo ma fi bàyyi. j'ai accepté les choses yoo xam ne certains membres du CNG fii président mun nañ leen ko confirmer dama ko def rek pour defar pour indi jàmm parce que am na coow yoo xam ne bëgguma sama egsi ci yow te lépp maa ngi koy defar yàlla tax aw ma ci benn intérêt te it ñu ngi liggéey dans la transparence comme ni nga ko waxee chaque année que dañuy oote assemblée générale comme ni ko demandé d'information informer nos partenaires mais surtout la tutelle boo vérifier dans vos départements tous nos rapports sont au niveau du ministère des sports ren nag dinaa ci dolli leneen avec votre permission chaque mois dinaa def benn état récapitulatif envoyé ko le directeur du sport pour xool ñi nga xam ne indi nga leen ñu bees ci comité bi te bëgg loolu yëpp ñu indi une amélioration d' seen ñëw dinaa ko nangu ak daane tàllal ñaari loxo maa ngi invité ñëpp ñu ñëw indi seen xam ku indi xam-xam bu munti doon danañ ko jël étudier ko à ta présence xool na ci njëriñ bi def ko ci waaye li wóor daal mooy benn affaire gars yi nga xam ne ñëw séq mbir mi bon c'est des gens yoo xam ne yii dëgg ils ont du mérite au passage moi je félicite tous les propriétaires et éleveurs parce que liggéey bi ñuy def dafa am solo parce que jël say millions yu dul jeex def ci loo xam ne doo ci am dara ah loolu dafa nekk loo xam ne passion rek moo ko mun comme ni ne aussi moo ci wóor monsieur le ministre Euh, course amul xaalis waaye passion boobu la am na lu amul lu mu leen jaraloo ma di la xamal ne rek fii ngi toog fii ma toog nii confiance la fi tege confiance boobu nag du ma ko jëndee dara su su àddina amul kenn amul doom amul kenn koo xam ne mën na ma détourner dans cette allée parce que man li ma gëm mooy li ma jox naa ko mérité. parce que buñ toogee ci kilifa mu wax ak ñun ñu déglu ko. bu paree war nañ ko sant gërëm ko bu fekkee li mu wax ñëpp am nañ dégg-dégg si ni mu waxee waaye yow ku nekk si sa ministère war naa laa gërëm sant la parce que liggéey bi fi liggéey umpul ñëpp ku si nekk technique sa bët te lu nekk jaar na fi nga réglé làmba gën a garaaw fukk yoonu juróom-ñaar te juba ñoom ñëpp aw nañ yoon te lépp nag teg la ak mën a wax doomu aadama yi waxee doomu aadama dafa am solo loo gis rek ci waxin la waxin bu jub bu rafet loo bëgg am ko ci doomu aadama du xër xër du dóor du dara mais yow ku lay topp rek di topp say wax ak ni ngay waxee rek kuy doomu adama rekk war na laa jukkee jërëjëf yàlla na la yàlla may ko ci installation bi ministre bi doon la installé ak membre CNG yi euh, tey ban yëg-yëg nga am tey ci bés bu réy bi. yëg-yëg bu rëy Amadou Diallo sant yàlla aussi sant sumay waajur di xamal ne vraiment bés bi bés bu réy la suñu présence bi aujourd'hui kontaan naa ci lool mais surtout maa ngi gërëm aw passage suma soxna madame ñaa nga xam ne sonn na trop ci affaire course hippique yi te lépp dafa ci jublu sonn wu ci dara lu may mu bëgg mu baax rek kon ak ndam lañ am tey ci bés bi ak nañu ministre bi installé Séné euh, turfis yëpp fekkee ko du ko mën a def ba mu jeex te gërëma madame Niang parce que vraiment elle a été d'une grandeur exceptionnelle à mes côtés partout fu ma dem jëpp affaire mbirum course elle m'accompagne avec désintéressement kon nag ko lu mel ni bu amee balaa may wax dara mooy gërëm ko sant ko mais au passage encore yàlla maa ngi sant yàlla di leen sant yéen tamit yéen ñi nga xam ne teew ngeen ci bés bi tey bés bu rëy la bés bu màgg ñoo déggandoor li ministre bi def comme déclaration wax na li war a wax yëpp ci bés bi mu nag mu lu may retrouver suñuy manche continuer liggéey liggéey boo xam ne dana jëriñee course ca kanam parce que course hippique ñun ñëpp ñoo ko bokk te lépp loo xam ne récupéré nañ ko fi tey comme directive danaa ko appliquer à la lettre parce que man ministre bi li nga xam ne moom la moo wax ne naa ko def loolu rek lay def du ma ci beneen affaire mais encore may éviter les propriétaires et les éleveurs ñu revenir à de meilleurs sentiments c'est-à-dire ñu bañ a jiital rawante bañ a jiital seen xol ci mbir yi xam ne lii fo rek la waaye aussi fo am njëriñ la parce que am na lu ciy ruusee lépp loo xam ne ruus na ci ñun CNG suñu préoccupation majeure mooy delloo ko ci borom fas yi le leen lu ñu leen warul jox parce que fi mu ne nii ren bi may fonctionner jox naa pour cent des recettes de la LONASE au propriétaire et le pourtant taxe bi ñu régi daf ma ne naa joxe 45 pour cent pour les prix et dem au delà parce que xam naa borom fas yi sonn nañ te ñu laa ngi dimbali la ñu may gërëm au passage aussi qui n'a ménagé aucun effort pour nous accompagner lépp loo xam ne war na ci course hippique defal nañu ko jàppale nañu. tey fal nañu li nga xam ne euh, installé nañu comité bi euh, tey kañ nga jàpp réunion yi nga xam ne pour xaa xalaat li nga ne mooy ouverture du saison. waaw dama bëgg a jàll foofu c'est très simple dama bëgg a bàyyi rek ni ñi def seen réveillon 31 décembre le lendemain du 31 décembre dinaa lancer les convocations éviter tout le comité directeur yu ñëw def prise de contact. dal di jublu nag xool si programme saison bi parce que dinaa instruire tout de suite euh, Bibo Chérif si mi nga xam ne c'est le chargé de l'organisation mu préparer ma le calendrier de la saison bu ko defee ñu discuter démo ko démocratiquement dans la salle bañ bokk ci d'accord ñun ñëpp tënk ko bu ko defee ñu évoluer dans ce sens là mais am naa yaakaar ne très bientôt on va démarrer les courses. bii euh, euh, dixième dixième année nga jiite li nga xam ne mooy CNG course hippique lan nga xalaat ndax gis nañ innovation yi am de taille waaye bërki démb la ñu jóge Toulouse te na ay mëbët yoo xam ne mëbët ngeen ko pour fexe booster course yi mu jëm ca kanam. waaw Toulouse dañ fa booster boo gisee ba ñuy dem ñu invité de tolérance mu ànd ak ñun dañ dafa dañ ko oowoon pour mu ñëw xool l'hippodrome de Toulouse nan lañ ci mun jàppale ba ñu réaliser ko au Sénégal que hippodrome bu yem la bu modeste boo xam ne bii mun na nekk. servir d'hippodrome national au Sénégal parce que ñun dañ am relation international avec euh, nos partenaires de l'étranger tels que les membres du France Gallo ñu am ay relation yoo xam ne yi de coopération avancé na trop te suñ autorités yi ñu àndaloon ba ñu eggee xam na ne li ñu loon wax yëpp dëgg la te gis nañ ko parce que tubaab bi ñu waxal seen bopp te weddi gis bokku ci ma di la xamal ne rek bañ fa demee daal l'ONAS vraiment en la personne de Amadou Samba Kane son directeur général passage def na fa engagement yoo xam ne yi pour accompagner le CNG encore pour wan la à quel point lui il est engagé auprès du TOOFIS jël na fa engagement en dehors ci li mu jox pour ñu nous accompagner le l'achat du matériel mais aussi jël na fa engagement ne il est prêt a accompagner l'État si le chef de l'État lui donne feu pour construire l'hippodrome national à Diamniadio à euh, au Lac Rose émission ñoo ngi fii ci hippodrome Tanor Anta les jeunes turfistes ak amateurs yu hippodrome Tanor Anta Baxar nekk fii ci Tëngéej tey ñoo ñoo am cri de cœur boo xam ne dañ koy wax ci hippodrome bi nga xam ne hippodrome centenaire la ndax 1909 lañ fi jëkk dawal li nga xam ne mooy course waaye depuis 2017 ba tey gëj nañ fi dawal course ndax travaux yi nga xam ne mooy travaux terre bi moo tax tey ñu ooto oote woon génn tey fas yéene ñaxtu ci li nga xam ne moo jëm ci hippodrome bi ndax xam ngeen ne fii hippodrome bi dañ fiy dawal course waaye école yi nga xam ne ñoo wër fii yëpp fii lañuy ñuy defee EPS huit association sportive dañ fiy defe seen i entraînement tey nag am na handicap bu rëy rëy boo xam ne am nañ ko. taskati nan ngeen mooy tuddiyee ay fitna jëmale ko ci askan wi. nan daal mu xale yi ne te mag ñi ne fa dañ koy toppatoo. Sénégal mooy. waaw man maa ngi tudd Ousseynou Seck euh, j'habite Rufisque au niveau du comité départemental man maay euh, je suis le man maay vice président bi et en temps je suis le porte-parole waaw. Euh, ñun suñu collectif bi mooy doomu Tëngéej. waaw ñun li ñu tax daje fii dafa doon loo xamante ne ni loolu doy waar la parce que suñu hippodrome bi depuis 1904. ba nag ni si ñu ngi siy dawal ay fas mais seetlu nañu ne terre bi bi mu ñëwee fii ci hippodrome bi si on bu ñu deful ndànk rek dinañ ñàkk suñu hippodrome bi te dafa am loo xamante ne lii ah, Tanor Anta Mbaxane tey jii bu bu dekki woon tey jii dina mer parce que dina ne où sont mes héritiers ñun nag nous sommes les héritiers de Tanor Anta Mbaxane te lii fi nar a xew du ñu ko nangu lii fi nar a xew mooy yéen ñëpp gis ngeen ne terre bi envoyé na suñu course ba ba si on fait pas attention fii dootuñu mën a organiser benn pourquoi parce que xool leen tali bi fi ñu bëgg a jaarale or que ci suñu xalaat am nañ beneen possibilité boo xam ne bii bu fa tali bi jaaroon duñu impacté course bi mais mur bi même terrain bi bu ko état bi moomee mur bi ñu fi defoon ñun ñun ñi ay doomu Tëngéej ñun ñoo doon cotiser suñu dërëm ak suñu ñaar dërëm autorité jàppale ñu def fi mur mais mur baa ngi nii dindi nañ ko te ñu si dara xamuñu ko dara waaw deuxième les poulains de deux ans, 16 partants pour une distance de 1200 mètres. Numéro 1, Talisman, propriétaire Moustapha Hachem, Joaquin Baïdien Diallo, corde numéro 14. Numéro 2, Ndigal, propriétaire Alun Diouk, Joaquin Mohamed Sissoko, corde numéro 8. Numéro Ndey Maria. propriétaire Assane Diouk jockey Mouhamadou Bamba Ndiaye corde numéro 10 numéro 4 Rayane propriétaire Ale Diagne jockey Oumar Sarr Diallo corde numéro 3 numéro 5 Moursine propriétaire maître Souleymane Diagne jockey Saliou Mbaye corde numéro 9 numéro 6 Delphinion propriétaire Idrissa Joké Saliou Seck corde numéro 4 numéro 4 Mamindawa propriétaire Samba Yoro Sow Joké Saliou numéro 6 numéro 8 Black propriétaire Abdoulaye Ndoye Joké Alassane Seck corde numéro numéro 9 Martaba propriétaire Abdoulaye Aliouka Joké Mbaye John numéro 1 numéro Chalala. Propriétaire Malik Ahmed Diop, jockey Demba Cham, numéro 11, numéro 11 Soudou. Propriétaire Moustapha Bao, jockey Fallou Diop, corde numéro 2, numéro 12 Sali Aïda. Propriétaire Mohamedou Lamine Diop, jockey Adama Gueye, corde numéro numéro 13 Ndiouga Fall. Propriétaire Samba Koura Diop. jockey Chérif Badiane corde numéro 12 numéro 14 Ñaña Cissé propriétaire Sidi Ndaw jockey Yamar numéro 7 numéro 15 Linguère Tening propriétaire Babacar Malik Fall jockey Saliou Kassé corde numéro 5 numéro 16 Ruza propriétaire Aliou Demba Djouloka jockey Serigne Ali Seck corde numéro 16 16 partants pour une distance de 1200 mètres que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque di ko sponsorisé at mu jot jóg nañu génn nañ ci starting block yi Papa Diadia génn nañ ci starting block yi ñu nekk 16 partants war a daw distance su 1200 mètres waaw Ryan génn na Moussine ñëw na waaw numéro 7 bi muy. dañu jëli ay étalon bitim réew boole leen ak suñuy wajan yi nekk fii ñu jur leen ñuy ay trois quart ay 7 huitième ay 15 seizième Rayane Rayane a nekk ci kanam Rayane moo nekk ci kanam Soudou moo ñëw en deuxième position Soudou Ndey Maria ñëw na Ndey Maria ñëw na dawal nañu talisman dawal ñu talisman. dawal nañu talisman ci tournal bi dawal nañu talisman Rayane jox na leen ñetti longueur Rayane jox na quatrième position waaw bu ñu ñëwee dañuy tekki 200 mètres moo leen dese waaw Rayane moo nekk ci kanam deuxième position Soudou troisième position talisman quatrième position waaw Mouxine premier numéro 4 Rayane deuxième numéro 11. numéro 11 Soudou troisième talisman troisième talisman waaw ki nga xam ne mooy Rayane huit sorties huit victoires boo nee Rayane sa xel day dem ci ka nga xam ne mooy maître Souleymane Diagne naka nga gisee rawante mool nga xam ne ñoo am ñaari at. waaw ah, rawante bi Diallo ni ma ko gisee mooy Rayane dalee na man fukki yoon ndax dimaa jot day jóg génn waaye nag da saaraw la indi indi dégg nga maam saaraw par. ak saaraw mbayaar ak jaali ñooñu Baye ci kaw moo leen moomoon ñoo ngi journée bu calendrier bu comité national de gestion des courses hippiques journée nationale du cheval dotée du grand prix du chef de l'État son excellence monsieur Macky Sall président de la République du Sénégal ren nag mooy cinquante e édition bi ñu ñëw ak yéen ci li nga xam ne mooy première course bi muy première course bi muy PDA yi les poulains de deux ans ñu nekk 18 partants war a daw distance su 1650 mètres numéro 1 Rayan propriétaire Ale Diagne jockey Oumar Sarr Diallo corde numéro numéro 2 Missane propriétaire Daris Oumar Ndiaye jockey Abdou corde numéro 4 numéro 3 Mouhsin propriétaire maître Souleymane Diagne jockey Mohamed Sissoko corde numéro 14 numéro 4 propriétaire Samba Koura Diop jockey Chérif Badiane corde numéro 17 numéro 5 Ñaña Cissé Sidi Ndaw jockey Yamar Gaye corde numéro 12 numéro 6 Talisman propriétaire Moustapha Hachem jockey Saliou Kobar corde numéro 9 numéro 7 Magistrat propriétaire Cheikh Tidiane Sy jockey Saliou Seck numéro 8 numéro 8 Delphignon propriétaire Idrissa Niang jockey corde numéro 18 numéro 9 Baye Galaye propriétaire Moustapha Gueye jockey Modi Kassé corde numéro numéro 10 Black propriétaire Abdoulaye Ndoye jockey Alassane Seck numéro 15 numéro 11 Martaba propriétaire Abdoulaye Aliouka jockey Mouhamadou Bamba Ndiaye numéro numéro 12 Destiny Major Diak jockey Fallou Diop corde numéro numéro 13 propriétaire Moustapha Bao Joko Kosembake corde numéro 2 numéro baax na ba tey propriétaire Oumar Sow Joké Mbaye Diène Diallo corde numéro 11 numéro 15 Dikel propriétaire Mambey Ndiaye Mambey Diop Joké Mbaye John corde numéro 1 numéro 16 Chalala propriétaire Ahmed Malick Diop Joké Demba Thiam corde numéro 7 numéro 17 Maître Binte Thiam Diop propriétaire Issa Gueye jockey Serigne Ali Seck corde numéro numéro 3 numéro 18 Salimar propriétaire Abdou Khadir Mbaye jockey mbay Mbaye corde numéro 5 18 partants pour une distance de 1650 mètres que le meilleur gagne dans le fair play et dans un esprit chevaleresque Seydou fas yaa ngi ci départ bi ñu nekk 18 partants war a daw distance su cent mètres. ci starting block yi ñu nekk 18 partants war a daw. waaw euh, Rayane génn na Rayane génn na Rayane génn na waaw ak ak moom lañu ñu indi waaw waaw fas yaa ngi jàkkaarloog ñun waaw Rayane ñëw na Rayane ñëw na. Rayane ñëw na numéro 7 bi moo magistrat magistrat euh, euh, Misaan Misaan Misaan moo nekk en deuxième position Rayane jockey bi ko war mooy Oumar Sarr Diallo magistrat nekk en troisième position 1650 mètres la waaw ñoom ñëpp ñu ngi daw ñoom ñëpp ngi dóor ñoom ñëpp ngi dóor ñoom ñëpp ngi dóor waaw ñoom ñëpp ñu ngi dóor premier Rayane deuxième Salimar Salimar Salimar Salimar mooy deuxième Salimar mooy deuxième waaw ah, magistrat moo jël troisième mbokk yi ñëwaloon ngeen fi nga xam ne mooy ministère des sports tey ki nga xam ne mooy le ministre Matar Ba doon installé officiellement le comité national de gestion des courses hippiques du Sénégal les jeunes turfistes yi nga xam ne ñoo dëkk Rufisque xam ngeen ne li nga xam ne moom mooy TER bi muy train express régional bi dafa impacté li nga xam ne mooy hippodrome Tanor Anta Mbaxar ñoom nag ñu defoon point de presse doon ci ñaxtu tey loolu lañ leen indil seen émission au galop di ñaan nag euh, bonne fête de Noël waaye nag du ñu tëj émission bi te gërëmuñu ki nga xam ne mooy le ministre des sports muy Matar Ba ci fulla gi nga xam ne ak fayda gi nga xam ne am na ko ak taxawaay bi nga xam ne am na ko ci sport bi waaye aussi di gërëm le président de la république moom mi nga xam ne mooy son excellence monsieur Macky Sall ci 2 pour cent yi nga xam ne octroyé na ko le comité national de gestion des courses hippiques ñoo ngi leen di jox dig daje seen yeneen émission o galop te di leen ñaanal bonne fête euh, jàmm ak xéwal